de voler un vote. Mais ces gens-là, ils volent des milliards comme ça. Ils volent les paysans comme ça. Ils pillent ce pays comme ça. Ils volent l'éducation et la santé de ce pays comme ça. Parce qu'au vu et au su de tout le monde, parce que c'était devant vous, c'était devant nous, c'est devant le peuple sénégalais et le monde entier, ils trafiquent des votes. Voilà comment fonctionne l'Assemblée nationale. C'est ça que j'ai voulu montrer en exergue par l'acte que je viens de poser. Et je vous avais averti. Pendant 12 mois, la commission chargée du contrôle du budget de l'Assemblée nationale, dont j'étais le vice-président, ne s'est jamais réunie pour contrôler les 23 milliards de budget de l'Assemblée nationale pendant 12 mois. Et nous sommes un des 30 pays les plus pauvres de la planète. Voilà comment se passe cette Assemblée nationale. C'est pour vous dire la mascarade qui nous réunit aujourd'hui. N'eût été des citoyens qui sont emprisonnés, qui sont morts et qui sont nombreux on en rirait presque. Mais cette mascarade est dramatique et tout, simplement tragique. C'est pourquoi, oui, je comprends la colère de mon collègue Tcherno Alassane Sal, Je comprends la colère de mes autres collègues. Parce que la priorité, elle est autre. La priorité est de sortir le Sénégal et l'Afrique du sous-développement. Et non par ces petites choses. D'accord De nous réunir aujourd'hui. L'Assemblée nationale aurait dû être réunie pour voir est-ce que les intrants agricoles vont aux paysans. Est-ce que les milliards qui sont votés pour la santé vont effectivement au système de santé Les milliards qui sont votés, est-ce qu'ils vont effectivement au système scolaire et universitaire c'est ça qui aurait dû réunir l'Assemblée nationale du Sénégal. Est-ce qu'on va faire comme la Bolivie qui décide que 80, 82% euh, de ses ressources bénéficient aux Boliviens et seulement 18% du pétrole, du gaz bolivien bénéficient à l'étranger Voilà les débats qui doivent nous réunir. Comment développer l'Afrique Comment avoir une Afrique souveraine, un Sénégal souverain, prospère et uni C'est ça qui devrait nous unir. Et non, ce putsch. Donc je, vous je viens de vous administrer comment est-ce que l'Assemblée nationale fonctionne. Donc Moki, nous nous avons li wax président assemblée nationale ak waa Benno Bokk Yaakaar mooy gàcce la ñu teg ñun assemblée nationale ndaxte ñun ñëpp ko depuis cinq ñu avons voté voté nañ juróomi jëm juróom-ñaari yoon xeyna sax voté nañ fukki yoon yoon bu nek dégg ngeen ko ñu ngi naan ñom am nañ 111 voix opposition am 55 54 voix muy 165 députés saa buñu ñu compté ñu né wa Benno Bokk Yaakaar ñi leen ñu ngi toll ci ci ci témèr ak fukk ak benn opposition ñu ngi toll ci juróom fukk ak ñent muy 165 or man dama xol gis na amna ay députés yu manqué ci députés yu manqué yoyu député bu ñuy woowee Nicolas Ndiaye nek député Benno Bokk Yaakaar nekku fi ma xol délégation yi de délégation bu ngeen ko déggee moy député mun na absenté mu bind ci kayit né député sangam bu tew mo koy votel ma xol délégation Benno Bokk Yaakaar gisuma fenn fuñu bind député Nicolas Ndiaye wax na député sangam mu votel ko kon naka la ñuy compter systématiquement Nicolas Ndiaye ni la assemblée nationale di doxé ni le réew mi di doxé ñu ngi sacc sàccu vote sàcc xaalis sàcc milliard sàcc alalu réew mi ci sàcc la ñu dëkk ba tax Sénégal bokk ci fanweeri réew yi gëna a ndóol ci àddina bi tey waruñu fi woon ñëw daje ndax coup d'état constitutionnel ñu woon daje ndax putsch électoral waruñu woon daje pour naan dañuy yokkal mandat président de la république Macky sàll li ñu waroon daje fii mooy ndax jiwu béykat yi mu ngi jëm ci béykat yi ndax xaalis bu ñuy voté fii pour njàng bi mu ngi jëm si njàng bi xaalis bu ñuy voté fii ci wér-gu-yaram mu ngi jëm ci wér-gu-yaram yi lan moo tax accident yu bëri loolu moo ñu waroon dajale fii nit yi di dey ci accident yu bëri lan moo tax dëkk yu bëri ñàkk courant loolu moo ñu waroon dajale mais yu ñàkk fayda yi ay yokkal président Macky sàll d'accord juróom xaw ma juróom benn weer loolu la wallu wax benn bokk yaakaar ne nañ leen yokkal fukki weer ak ñaar donc mbokk yi ah moo tax ñu koy waxaat lépp lu ñu mën tey dinañ ko def pour pour pour pour loi bi baña jall ndax té loi bi dëppoowul ak constitution dëppoowul ak constitution président Macky Sall bi mu jité CDAO moo wax Mali ak Burkina ñu organiser élection fekk ñaari réew yooyu dañu nekkoon ci xaré mu ne leen par la force donte donte yéen a ngi nekk ci xaré da ngeen di organiser élection wa ko lan moo tax ñun Sénégal amul xaré ñu né Sénégal dafa wara a ay élection Mali dafa am ay boy yu ñu wowe terroriste yu bëgg a xaaj ñaar dëkk bi mën na leen di ngeen organiser élection ana Samba Boy yi fii yu bëgg xar li nga xam ne mooy Sénégal donc lii mooy taxawaay bi lii mooy suñu position jërë ngeen jëf.